gaa yi day ñëw si kanam ñu ne ne oh gaa yi ñu ne ne mu ñëw mu ñëw. I need the hold. I need the hold.

begin. ay big superstar what's up how you doing bro non non non gars ñu leen di xool ñu waay ñu toog benn place demal demal demal non non non non ñu nekk ci biir this is the superstar international the guys hello Wally how you doing why you come here today why you come here today patron yal na yàlla guddal sa fan patron I'm very happy for you I'm waiting you in Nigeria I'm waiting you in South Africa patron ay patron jërëjëf ah. ñoom kii boo xam ne dañu ñëw Cheikh Cheikh Anta kii boo ay nitam ñu ñëw. waaw caata gi noonu ci ginnaaw Moussa gi di toog nañ bàyyi gaa yi toog rek Moussa dugg caat dugg. journaliste bi ñu yàlla yonent mais toog leen nag ñu jàkkaarloo ñu. waaw Ndiaye ñu ngi kontaan ci suñu problème bi ñu gis. maa si may sa digg may sa digg maa ngi dinaa ma tuddoo nga ko nekk ci ndàmpaay. yow boo ñëwee am na ma xam ne ñoom la jaajëf ndax nag les centres du peuple. l'essentiel bi àdduna l'essentiel bi monde l'essentiel bi feeñee wax waaw mais mais ngir yàlla ñoo te filmé kat yi journaliste yi mais toog leen nekk ci wax ak ay nitam mais xanaa fi amul ay vidéo ma ñëw kii dugg si noonu waaw mais toog leen nag ngir yàlla nag waaye tamit délégué dafa am lu mu bëgg a wax. oh pop pop pop Omaro Omaro. kii dugg si nag mooy Mariasin may sa digg may sa digg maar aji naan na ci ndóol ngir keles bi ci lambaay Baye Sall patoro xaali mbay dogo ah mais da nga leen di génne génne leen da nga leen di génne ñu génne fi jàmbur dañuy yàq fi jàmbur rek ay filmé rek dañ fiy def lii moo rafetul sax génn leen ñu na ñëpp génn nañ jël seen caméra yi ñu tëb ci ginnaaw kii dafa woo ay nitam gaay nañ ñëpp arrière nañ ñëpp dellu ginnaaw nañ ñëpp dellu ginnaaw nañ ñëpp dellu ginnaaw arrière leen arrière leen arrière leen maa ngi leen féete woon day joor wala digg bi la ñëpp puus bu kenn taxaw ci digg bi la ñëpp puus délégué Amar mérité lii délégué mérité wul lii nit ku baax ku am yar ku mës a woote wuyu na la la war sa bis def na ko ca nanu ko sagal bu nu yàq bisam bi nanu ko sagal presse bépp nan tas ñi nekk ndeyjoor ñi nekk càmmoñ ñu xàll digg bi mu féex dama xaale dëkk bi kër gi kenn war ko taxaw kenn kenn na ñëpp toog kenn lu yegg suuf dem leen dem leen dem leen gannaaw gannaaw yegg leen suuf avancé leen avancé leen waaw na yegg suuf loolu ba arrière arrière arrière tout le monde ma turee ma turee xaaral ma turee may ma tuuti may ma xaaral xaaral ñu arrangé fii nga wéyal sa programme na ñëpp yegg suuf waaw na ñëpp yegg suuf na ñëpp yegg suuf honorable député délégué Amar jël soxna son excellence président jàmm réew mi bàyyi lépp lum jàppoon ñëw teew def na li ko war nit nag président xam na li ko war te defu ko ndokku yàlla ba ku la yàlla booleel nga ànd ak moom rek la war ci yow jëm ci moom doxe nga ko waxe nga ko jëfe nga ko ba mu mat sëkk encore une fois ñun ñu la topp ñoo la ameel bor waaye yow mi ñu jiitu wàccoo nga ak ñëpp ba bëgg nag gala gi mérité na xam ne ci ñun bisam bi kenn war ko yàq kenn war koo sorxo sorxo ndax délégué nit ku baax la as gor la jàmbaar la te kenn mënu ko ci liggéey bii ñu liggéeyal président Waly Ballago Seck kon nanu ko sagal ñu déglu suma papa suma xarit papa Kéba Seck mi ngi fi teew def une forte délégation bi pour le rem ak ki nga xam ne mooy délégué Amar waaye suma rak suma xarit borom Zénith le 29 juin daanaan bu mag bi si di toog ñu ngi ci mbooloo mi ñëw wuy si frère am ñëw wuy xaritam ànd ak délégation suba teel production yëpp def ngeen lu rafet yàlla yàlla fay yiw Alaaji Baara Diouf imam moo père de valeur loolu dund doyul monsieur le ministre Macky jërëjëfati monsieur le ministre Amady Badiane jërëjëfati monsieur le ministre Youssou Dieng jërëjëfati monsieur le ministre Toumani Ndiaye monsieur le ministre Ousmane Thiam jërëjëfati avec tous les membres du délégation Jàmmi Réew mi DJ Yves merci beaucoup merci beaucoup Magor merci beaucoup waa suba teel képp jàppee gu ñu nag ci wax ji danaan wax waaye ca kanam damay bàyyi xaali mbay ak ñi nga xam ne ñooy waaram daan waaw ma ñëw euh, euh, ma ñëw tuuti